gouverneur di ko wax mu remercier ma encore monsieur le gouverneur si ci disposition yi nga xam ne yëpp jël nañu ko bi ñu leen annoncé ni comité national bi nga xam ne mooy organiser la journée mondiale du lait dafa tànn la région de Thiès te bi ñuy tànn région de Thiès nag tànn ñu ko rek noonu ci yaama neex wala leneen bu ñu ko tànn tànn parce que région de Thiès dafa am zone yoo nga xam ne du ñoo favorable bu baax a baax a baax à l'élevage ba pare te gis nañu fi tamit ay initiative yu fi dox euh, defe naa bu ñuy tànn ay champion boo moytuwul bu ñu jógewul Ndakaaru fii la ñuy jóge ci région de Thiès kon loolu ñëw rafetlu ko bu baax a baax ba nañu ñëw tey defee affaire euh, région bi fii beneen bi tamit may nuyu Alpha Sow ak euh, ñi nga xam ne yëpp ñoo fi toog représenté ay organisation d'éleveurs may nuyu vétérinaire yi nga xam ne ñu ngi fi di nuyu daal képp koo nga xam ni tey def nga déplacement bi ñëw fii Ismaïla jëf ñu ngi lay nuyu bu baax le président de la maison des éleveurs jaadu na nga recevoir vraiment la journée nationale la journée mondiale du lait may nuyu bu baax a baax tamit tout le comité national euh, euh, ah ñoom. Ousmane Ndiaye non Ousmane ñoom moom Oumar Fall a ngi fi gis naa docteur euh, euh, docteur euh, Dramé Daour Dramé ak Dieynaba Sidibé seen jigéen ak ñi nga xam ni ñëpp daal wax dëgg yàlla mun na su ma leen di citer ñoom ñëpp dafay dafay dafay dafay dafay doy waar du ñu fay yàgg ak la direction des industries animales moom itam ci seen liggéey seen taxawaay maa ngi nuyu bu baax a baax le représentant du maire le maire Talla Sylla la wóor na ma ne bu fi nekkoon moom fii lay yendu ak man parce que yàgg nañoo ànd ci yu mel nii li ci li ci liggéey donc ki ko fi représenté joxal ma Talla sama nuyoo ak euh, vraiment rafetlu boo nga xam ne rafetlu naa ko li mu bàyyi euh, maire bi yëpp ak ñun ci suñu loxo pour lu ñu ñu di fi organiser tey lii yaakaar naa ni maire bi tey am na ay gan parce que toutes les régions Sénégal soo représentées sont représentés aujourd'hui à Thiès beneen bi mooy euh, dama am mbégte ci li nga xam ne noonu la le comité scientifique euh, organisé la journée du lait journée du lait mënoon nañoo ñëw rek le premier juin nga xam ne moom la ci mbootaayu xeet yi kiy toppatoo wàllu agriculture yore élevage yore pêche yore wàllu environnement ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko institué pour wane rek importance bi nga xam ni meew am na ko du point de vue économique ci wàllu social boo jëlee fii Sénégal sax ci wàllu culture ak yeneen ak yeneen te ku judd ku ne nag yaa xam ci manifeste yëpp daal ci meew moom la ñu ko dugal ci seen ci seen gémmiñ te nit a ngi ci mala yi ñu ngi ci ak ñeneen donc loolu ñuy rafetlu bu baax nag kon lu ñu tànnee tey région bi pour def ko fi. Euh, la journée mënoon nañu ko def comme ni ma ko waxee léegi suba waaye ñun toujours du ñu koy précéder de réflexion maanaam nit ñi nga xam ne ñoo sëq liggéey bi il faut que ñu toog di échanger ki seen biir ku ci nekk di wax jafe-jafe yi nga xam ni am na ko ci liggéeyam ñeneen ñi di wax succès yi nga xam ne am nañu ko ci seen liggéey bu ko defee ku ci nekk dina am loo mën a indil sa moroom jëlee ko fi comme xam-xam boo demee nga jéem koo jëfee. loolu moo tax tamit ñu ciy boolewaale exposition boo nga xam ni dafay wane seen xarala ci wàllu meew parce que tey boo demee fi ñu exposé man eggaguma fa mais en tout cas yi nga xam ne daan naa fa dem wax dëgg yàlla daan naa fa fekk ay produits yoo nga xam ni amuñu dara lu ñuy envier aux produits importés te it man toog naa ak ay nit ñoo nga xam ne ay tubaab yu dëkk Poitou Charentes ci benn mini laiterie bu nekk fële ci Colobane dans la région de Fatick. ba ñu mosee fromage bi nga xam ni chèvre yi nekk ci dëkk bi ñoom ci ñoom ci seen meew la ñu ko defaree daf ne boobu fromage de moom li mu fi mos moo gën a neex seen fromage donc loolu dafay wane ni que ñun am nañu ay éleveurs ay transformateurs ay producteurs yoo nga xam ni ñu xarañ lañu ci wàllu liggéey bi loolu moo tax bu ñu wootee journée bi ñu def un atelier scientifique xool lan mooy jafe-jafe wu éleveurs yi lan mooy jafe-jafe wu transformateurs yi lan mooy jafe-jafe wu filière laitière en général tënk ko bu ñu xëyee war koo restituer waat encore ci grande euh, kii ci ouverture bi loolu dëgg yàlla ku xerañul mënuloo def lu demee noonu kon Alpha nga xam ne ca stratégie de croissance accélérée ba ndëgë ni lu ñuy wax ci wàllu meew bi ñu ko koy dénk parce que daf cee am xam-xam tey moo ñu toogal fële daanaka ci plan Sénégal émergent ci euh, le bureau opérationnel pour le suivi du plan Sénégal émergent donc loolu ñu ngi koy féliciter bu baax a baax di ko encourager di remercier également son son son ministre euh, euh, monsieur Kanté monsieur Cheikh Kanté moom itam ci taxawaay bi nga xam ne mi ngi ko taxaw vraiment ci wàllu élevage ci biir plan Sénégal émergent di nuyu encore une fois ñi nga xam ne ñëpp daal. ñëw nañu fi fekk si li nga xam ni moom la ñuy def rawatina nag ñi nga xam ni ñoo doon boroom ñoo ñoo doon boroom xam-xam yi nga xam ni ñoo ñu présenté tey li nga xam ni moom la ñu moom la ñu doon xaar mooy xool lan la ñu war a def daal lan la ñu war a taxawal ci organisation parce que boo amee sa sa sa sa loo nga xam ne da nga koo war a def ci ndab il faut nga def ko ci ndab loo nga xam ne d'abord set na il faut nga def ko ci ndab loo nga xam ne tamit mën na koo yokk il faut nga def ko ci ndab loo nga xam ne tamit xam-xam moo koy lal loolu moo tax ñu dikk doon xool par exemple ci wàllu coopérative yi ñu indi présenté leen plusieurs types d'organisation d'association yoo nga xam ni mën nañu leen a xool seet bi nga xam ne ñun yaakaar nañu ni boobu moo gën ñu taxaw ci mais ku nekk xam ne ni que le mouvement coopératif dafa am loo nga xam ne dafa daf koo def ci biir réew mi donc may félicité bu baax a baax a baax sama xarit monsieur Silla ci xerañam ci wàllu woowu man maa ngi fàttaliku bi ñuy def les groupement de promotion féminine du ñu ne woon du ñoo bëgg suñu statut type boo nga xam ne ça concerne les groupements mais munuñu woon a teg de côté yi nga xam ne daf fee amoon du ñoo mujjoon a jël le GIE jël l'association comme vous avez fait tout à l'heure mais ñu jëlaale également les coopératives te à l'époque coopérative yi fekk na ñu daanu bu baax a baax a baax parce que du ñu leen a woon mais bi ñu ko jëlee. ñun duñoo ñoo gis ni que li ñu bëggoon a def ak groupement féminin yi coopérative la gënoon a jege yëpp loolu moo taxoon presque dama ci biir texte yi bi duñ cee bindoon ni que c'est bâti sur le même euh, chemin que le mouvement coopératif donc loolu bu pour bu diir que lii ngeen di dox muy ci Sénégal muy ci Afrique bu yeboo ngeen continuer ko parce que gisaguñu en tout cas benn organisation boo nga xam ne moo gën a démocratique tey aujourd'hui les coopératives ba fan yii rek avec la direct la délégation à l'entrepreneuriat rapide maa ngi leen naan que nañu xool bu baax a baax a baax le les les coopératives parce que man li nga xam ne moom lañ ci tudde woon la caution solidaire sama waa service ak ñëpp dama leen ci encouragé naan leen kuy leb na juróom lebandoo juróom remboursé ndoo parce que coopérative yi loolu bokkoon na ki seen ki seen ki seen ki seen force donc loolu lu ama am solo la loo nga xam ni moom il faut que ñu continuer di ci di ci di ci liggéey donc beneen bi mooy euh, le lait controverse yi wax dëgg yàlla bari na man moo tax ma ni am na ci question yoo nga xam ni bu ko kenn nekk di ko diffuser muy yaatu parce que loo nga xam ni leeru la boo ci waxee rek dina am yàq-yàq bu bari loo nga xam ne di nga ko def donc may laaj may ñaan rek waa waa presse bi am na ki discussion yoo nga xam ni jarul a génne parce que des des techniciens avérés dinañu toog waxtaan ci ba nga xam ne dinañu am une déclaration à mais moo gën ñu génn parce que je crois que monsieur monsieur monsieur Christian expliqué na bu baax a baax a baax moom li mu bëggoon a wax li mu bëggoon a wax nag ndegam intellectuel yi ko doon poser ay question ñoo ci def ay erreur asamaak koo nga xam ne xëy na intellectuel ngeen ay journaliste ngeen ay ay technicien ngeen mais je crois que technicien wu lee yi ndegam ñoo mën a def ay erreur asamaak yéen donc loolu rek moo tax ma bëgg vraiment pour loolu ñu bañ cee nekk di ci wax parce que buñ ci waxee rek dina am lu ñu yàq soit ñu yàqal les producteurs soit ñu yàqal les importateurs te bu ñu leen yàqalee suñu bopp lañuy ñuy yàqal ñun ñëpp la ñuy yàqal te loolu indiwuñu fi xam naa ne yéen itam indiwu leen fi voilà donc loolu moom dama ci bëggoon euh, wax bu bu baax a ñu yemale ko fa gis nga première condition de succès pour man mooy la formation lu ñu naan lu nit nekkul ndongo du ca nekk sëriñ te formation dafa am solo parce que ñàkk formation lu nekk moo koy indi moo tax du ñu naan toujours ku xamul bul wax parce que boo waxee rek mun nga yàq loo nga xam ni nit ñi mun nañu toog fukki at pour réparer ko donc formation dafa am importance ci li nga xam ni ñi ngi koy ñi ngi koy def may féliciter aussi waa Progrès les dem naa fekki leen dëkk bu tudd Njambanuuta dans le Médina Yoro Fula je crois que Ibou Fall ma nga fa woon parce que moom liggéey bu rafet lay def aussi ci wàllu meew mi ci zone Kolda bi moom ak ñi mu àndal ñépp nag ma boole ki tamit ñi leen di encadrer que ça soit waa AFS AVSF muy waa Gune muy euh, la société d'intervention bi fa nekk so Sodefitex la Sodefitex ay association yu tudd Bamtaare ak yépp vraiment ñi ngi rafetlu bu baax jàppale bi ñu leen jàppale mais liy tax ma gën a féliciter Progrès mooy énergie moo ko taxoon a jóg maanaam may nit ñi loo nga xam ne dinañ ci mën a liggéey pour mën a conserver le lait pour mu bañ a yàqu ci seeni loxo en attendant que mu am ñoo nga xam ne duñu koy jël si mais loolu dem na ba indi beneen développement ca biir dëkk ba parce que waa dëkk ba ña nga ña nga am source d'énergie boo nga xam ne tey non seulement école yi poste de santé yi euh, euh, infrastructure communautaire ya fa nekk yëpp mun nañu alimenter wu en énergie foofu mais am nañu sax beneen pourcentage bi gën a mag mi ngi war a dem ci famille yi loolu c'est extrêmement important keroog bi may fay jógee dafa fekk juste timis passé lamp yi tàkk mais maa ngi romb ay xale ci suufu lampadaire kii yi fa nekk solaire yi ñuy jàng seen ay leçons kon cela signifie que dans le domaine de l'éducation comme dans le domaine de la santé énergie am na un plus boo nga xam ne mun na ko indi te xëy na yooyu yëpp ay impact nouveau yoo nga xam ni xëy na bi ñuy def mbir mi xalaatoon nañu ko sax naam mais gën na en tout cas bi ñu ko gisee en sur le terrain gën nañoo yokkal am na ñu bari tamit ñoo nga xam ne wax nañu fi gis nga culture fourragère 2012 ba ñu ma nommé ba suñu jonn yàlla tey amul benn bis bu may toog ak ay éleveurs te duma leen ko wax am na ñu ma gëmoon am na ñu ma gëmul woon semaine dernière yi duñoo dem dans le dans le département de Linguère dem nañu ba commune Tessékéré mais bi ñu ak dem Doli benn éleveur boo nga xam ni moom vraiment kilifa la woon dirigeant politique la woon dafa ma ne woon carrément Aminta à l'assemblée commission technique commission finance plénière li ngay wax du jëm kër affaire culture fourragère bay ñax boo dikkee fekk ay éleveur nga leen koy wax dafa mel na daanaka yaa ngi leen di tooñ daal mais moom ci boppam moo ñëwal boppam gis li waa FAO liggéey ci champ école bi nga xam ne def nañu ko foofu mu taxaw ni moom dafay def témoignage parce que lii moom daf ko doon bañ mais tey gis na ni lii moo mën a sauver élevage changement climatique bu njëkk bu ñu ko daan wax man dama ci daan wax boobu nekkuma ministre élevage mais nit ñi duñu la gëm duñu naan lii ay wax rek la tubaab yi fi indi yooyu ak yu kenn xamul mais ku nekk ngi koy vivre dans la zone sylvopastorale amul benn heure buy sole te duma am lu mat fukki éleveurs yoo nga xam ne dinañu ma woo naan ma am nañu problème mu ñax li koy faj nag mooy bay ñax li ngeen di wax ci waa ci ci PUDC PUDC fu mu def forage bu soobee yàlla dinañu taxaw ba def fa au moins pépinière bu ko defee nit ñi man fay jël si keroog j'ai beaucoup apprécié aussi loo nga xam ne benn femme c'est la présidente du DIRFEL bi nekk bi nekk à à euh, vraiment mu mu wone moom itam ni production wam yokkoo parce que nee na daawul ratt meew suba daawu ko ratt ngoon parce que euh, doom yee ko doon naan doom euh, jur gi mais nee na léegi dafay am ñaata litre lay am 6 litres le matin wala 3 3 litre le matin 3 li non 3 litres le soir muy 6 litres 6 litres de lait pour un pour un producteur c'est important boo jaayee litre bi téeméer sama baay c'est 3000 francs mille francs ah di nga jënd ceeb di nga ci euh, jënd aliment di am na yu bari daal yoo nga xam ne mën nga ko cee def. donc loolu lu ama ama am solo la gis nga bay ñax éleveur bu amee organisation normalement da ngeen leen a war a exiger ñu bay ñax wala ñu bañ a bokkati ci organisation bi waaw parce que du sotti te nit ki bu fekkente ni tu da ngaa da ngaa incarner un leadership sa leadership da ngaa war a fexe ba sa ay membre nga dugal ko ci seen biir bopp mais man mënatumaa nangu benn éleveur bu naan bay ñax kenn waratu leen koo wax man de fu ma def toog dinaa leen ko wax xaw ma dama leen koy wax ñu génn dem parce que am na ci góor goo nga xam ne à Louga ba ma ko waxee dafa génn carrément gedd réunion bi dem ca biti toog ma dikk romb ko fa mu ne ko waaw xanaa dangaa feebar bi ñu génn léegi mu ne ma non yow man man jóge ba sama dëkk ba fii ma paasal sama bopp ñëw nga naan ñu affaire bay ñax ma ne ko sëriñ bi bay ñax moom bu dee ren ak déwén yëpp fu ma foo dajeeg man dinaa ba fa wax affaire bay ñax parce que bay ñax lu am solo la mais moom itam defe naa góor gi ku ko seeti actuellement je suis sûr ma ngay bay ñax parce que mbir mi moom neexalul kenn donc loolu ma bëggoon jigéen ñi man je sais que yéen bu ngeen ci jógee yéen mën ngeen a nekk def loolu une réalité parce que comme nee ngeen yéen a moom meew mi di yéen a moom meew mi am na sànq defe naa kan la woonati yéen a Fatimata la Fatimata ay Ba bu fekkente ni yéen a moom meew mi fexe leen ba meew mi li koy indi ngeen def ko mooy la culture fourragère te gis nga culture fourragère boobu par exemple maral falfa bi ñu bari wax nañu ko fi mais maral falfa bi moom bu ma benn faaleen walla kii wax meew mi muy joxe dafa mel ne dafa am suukar ndax dafa neex te te te dafa yokk production dafa yokk production meew mi kooku moom expérience ñëpp wane na ko wane na ko déjà te maral falfa bi boo ko boo ko jëmbatee tey di trois mois lay produire boo ko boo ko boo ko boo ko xuufee nu la du xuuf boo ko boo góobee boo ko góobee également bu amaatee trois deux semaines mu commencé waat di yéegaat eggu ëpp na une semaine dina dem ba quinze jours di soog a di nga nga dikkaat dagg et puis mën na durer c'est une plante pérenne bu mën a dem ba quinze ans am na sax ñu ne mun na dem ba plus que ça donc loolu li ñu bëgg mooy yéen jigéen ñi ngeen xam ni que pour am meew il faut ngeen bay ñax kon góor ñi tamit ñoo leen ci mun a jàppale. donc loolu tamit euh, may encourager tous nos services tous nos services waa ANCAR ñu vulgariser la culture fourragère madame le gouverneur yéen da ngeen di dem ay tournée économique. dans dans dans la région dans toutes les régions les préfets le font nañu ñu jàppale parce que ñoom ay ox suñu ay auxiliaires lañu pratiquement pour jàppale ñu pour vulgariser yenn initiative wala yenn innovation yoo nga xam ni duñoo bëgg mu mu mu dem bu baax a baax a baax ci ci nit ñi l'insémination artificielle ñun bàyyiwuñu ko waaye xam nga ku inséminer lu mat fukki nag ak juróom-benn ñaar rek am ca doom yeneen ya benn amu ca doom ba pare nga wëlbatiku sax dikk ni ma nag nagee sax bu duñ caa jëlee jaasir parce que defal nañu leen ko benn yoon ñaari yoon ñett yoon ba loolu baaxul moo tax ñu ne woon nañu arrêté insémination artificielle bi def ay ay ay étude xool bu baax a baax ba pare nag wut beneen orientation boo nga xam ne moom la ñuy jël loolu il faut que ñu toog ñu waxtaane ko mu jeex benn yoon ñu jël les mesures qu'il faut pour mën a commencer et je crois que le centre national d'amélioration génétique de Daara le secrétaire général waa Direl ak waa ISRA ñoom ñëpp ñi ngi ci liggéey boobu pour ñu xool nan la ñu mën a def pour reprendre l'insémination artificielle arrêté wuñu ko parce que am na ñu koy def ba léegi ñi ngi koy ñi ngi def mais ñun du point de vue de la stratégie du ñu ne woon ñun nañu taxaw tuuti ba am vraiment une bonne stratégie te nag fu ne la ñuy ëffee am na ñu bari ñu fi ñëw ñoo nga xam ni c'est des c'est des africains ñii c'est des sud-américains ñoo nga xam ne dañoo am expertise ci wàllu woowu. ku nekk xam na ni tey boo demee Amérique latine nga dem dëkk fu mel na Bruxelles euh, fu fu mel na Brésil wala fu mel na Argentine li ñuy produire ci yàpp ak ci meew jéggi na dayoo donc ñooñu am na ñu ci expérience bu avérée te ñoom ñi ngi fii bëgg a ñëw am na ñoo nga xam ne am na ñu sax ñu fa demoon fan yi je crois que yéen fa ngeen te yooyu rek la ñu fa doon xooli nan la ñu mën a def ba suñu production laitière yokku bu ko defee li ñuy wax ci poudre meew ak li ñuy wax ci leneen yépp ñun fekk na ñun jekk nañu ba am ndax am nañu suñu suñu production bu suffisante boo nga xam ne dinañu mën a dinañu mën a dinañu mën a conduire vers suffisance te yaakaar naa ne tamit loolu mun na nekk euh, beneen bi mooy may euh, may may wax rek ni leen que aliment bétail bi du ma ci duma ci insister lu bari fan yii rek instruire naa les gouverneurs de région tous les gouverneurs pour que ñu defal ma le point sur l' aliment bétail li ma leen ciy wax rek mooy aliment bi ñun OSB bu ñu ko dee def c' est pour animaux yi nga xam ne du ñoo sonn lool mais anim animaux yoo nga xam ne c' est des animaux de valeur ku koy jënd ba am ci fukk wala nga am ci ñaar fukk sama waay war ngaa war ngaa boole ci sa compte d' exploitation le poste alimentation affaire bi yëpp lool la parce que OSB xam ngeen lan moo ko tax a jóg te ñu ko sax yàlla su ngeen seetloo de dernières années yi OSB amul deux dernières années yi état deful benn opération de sauvegarde bi bétail parce que ñax amoon na te euh, éleveurs yi tamit ñi ngi woon a xaalis bi seen compte yi les éleveurs eux-mêmes ci année bi ñu nekk ci période soudure bii ñu nekk période difficile bi ñu nekk jëm ci soudure également boo nga xam ne bu difficile lay doon éleveurs yi jënd nañu quinze mille tonnes d' aliment bi ñu mujjee def le point te deux mois yi weesu euh, euh, mois bi weesu boole wuñu ko ci te xam naa ne li ñu jënd ci aliment bari na donc aliment du dundal jur daf koy daf koy jàppale rek liy dundal jur mooy ñax kon bay ñax bi je reviens là-dessus beneen bi tamit mooy mooy euh, am na tey ay projet yu bari yu nekk sur le terrain boo jëlee projet PRAPS boo jëlee projet PASA boo jëlee projet PAFA boo jëlee beneen bi nekk booru Matam PADA le PADAER ak P2RS DRIAS yooyu yëpp tey ñi ngi liggéey ci wàllu élevage ma di leen wax tamit ni que la délégation à l'entrepreneuriat rapide am nañu fa ñaari guichet benn guichet 500 millions pour les jeunes benn guichet 500 millions pour les femmes donc femmes Euh, loolu président moo ko def c'est une discrimination positive boo nga xam ne bu ñu nangu la am na nag keroog bu ñu waxtaan ku ñu ni waaw ñun ñu am plus de 40 ans ñun ñi am ay 60 ans ak yooyu nu ngeen ñuy def ñu ne leen am na yeneen projet yoo nga xam ni yéen éligible ngeen foofa mais yii nañu ko bàyyeeg jeunes yi ak jigéen ñi bu ko defee ñu xawal lenq li ko tuuti parce que lii soxna si lay wax sànq rek laay laay laay dëggal ba tey nee na bu ñu leen di can du ñu leen di jox ñaari nag yu jigéen ñoom ñoo meew meew ma rek nee na la ñu yaakaar ne moom la ñu moom parce que ne nañu léeg-léeg waa ji dikk jaay nag bi tëdd leen ko wax kon moomuñu ko yéen laajaat leen beneen façon gu oo kooku il faut que ñu waxtaane ko ak yéen bu ko defee ñu xool nu nuy def mbaa ñu bind bind ci seen tur wutal leen ay kayit yoo nga xam ne de propriété nga xam ne bala ko kenn jaay il faut que mu dikk wax ak yéen donc loolu dama ko ci ajouté rek pour euh je crois que euh, li ñu bëgg a sant progrès lee yëpp mënu ko mënu ko def projet expérimental la mi ngi doog a ñëw mi ngi doog a commencé te comme il l'a man je crois que pro projet yu mel noonu dem fa nga xam ne moom moo gën a jege ñi nga xam ne ñooy produire meew bi moo gën yóbbu ko au niveau du département dina am meew yu dul yegsi bu ñu ko fa defee dina am meew yoo nga xam ne du yegsi parce que distance yi moom moo koy waral. donc euh, vraiment ñu yem ci foofu beneen bi mooy euh, euh, beneen bi mooy defe naa loolu laa bindoon de pour les pour les pour les magasins d'aliments bétail également am nañu projet yu bari yoo nga xam ne tey ñu ngi koy defar au niveau des différentes communes am nañu tamit projet yoo nga xam ne ñu ngi defar ay parc à vaccination parce que parc à vaccination yi tamit handicap la woon vraiment au niveau du ministère au niveau des agents amuñu woon benn sécurité ci wàllu vaccination mais léegi je crois que situation bi amélioré wu na bu baax a baax a baax voilà donc euh, lii laa bëggoon a wax daal avant que ngeen clôturer sawaroon trop tamit ci dikk fekkee ko parce que toujours dama naan toog juróom benn weer ci ministère boo demee benn jour sur le terrain rek di nga fa jële loo nga xam ne xamoo ko ca ministère bi ci juróom benn weer yi parce que euh, éleveurs yi ñoom du ñoo xereñ parce que lu ñuy vivre la tous les jours donc tous les jours rek mën nga am loo nga xam ni da koy jàng da koy jàng ci ñoom kon encore une fois monsieur le modérateur le facilitateur euh, monsieur madame le gouverneur les directeurs nationaux monsieur le maire hmm, le président du comité scientifique le docteur Fall euh, ñoom itam ma di leen félicité waa ANIPL parce que l'année dernière ñoo fi commandé woon les mille ñaata mille soixante-dix-sept mille 1077 vaches laitières la ñu commandé def ko ci bateau indi ko fii sans aucune mortalité bi ñooy si loolu c'était pas évident bon projet bi mi ngi dem mu ngi mi ngi mi ngi mi ngi avancé fan yee passé am na luñ ki seetoon mais lépp mënu leen xëy rek nag sotti parce que commande bu toll noonu ku ko ku ko def ba pare te te te te suivre ko. noo mën a def dina am xëy na lu ci lu ci ga lu ay gàllankoor mais vraiment ñoom ñu ngi ciy def le suivi nécessaire Euh, dinañu xool nan lañuy def pour gën koo améliorer encore parce que ci wàllu formation il faut que ñu continuer ñoom sax def nañu ko parce que am na ñu ñu jëlee ba France indi leen fi ñu dikk def ay formation wax nañu ko sànq ci ay ration alimentaire ak yeneen ak yeneen te yaakaar nañu lu demee noonu mooy mën a avancer ak dëkk léegi nag li ki des euh, ñi nga xam ne nee nañu am bëgg am nañ ci ay soxla ren du ñu ni woon du ñuy liggéey avec l'extensif maanaam ci ci élevage extensif mooy ñi nga xam ne du ñuy def du ñuy def déplacement jóge ci biir région di màng di del feneen waa Tamba def nañu léegi un cri de cœur nee nañu zone sylvopastorale trois régions yu Louga Matam Saint-Louis pratiquement ñoom ñëpp ñi ngi tey au niveau de Tamba am na benn opération sauvegarde de bétail bu ñuy def de trois cent million bariwul mais bu dikkee ñun dinañu tenir compte ci effectif yi nga xam ni du ñoo jógee la vers du no dem vers le sud ou vers l'est donc lu ñu ci mën a euh, jàpp bu soobee yàlla dinañu ko jàpp beneen bi tamit ci toujours ci wàllu OSB la FAO am na programme bu muy def mais ñoom léegi laa leen woo ci message la ñu ma yónnee pour wane ne à partir du 15 juin dans la zone sylvopastorale les départements yi nga xam ni ñoo gën a déficitaire ci wàllu pâturage ñoom am na loo nga xam ne dinañu leen ko dimbalee. donc loolu aussi vraiment yaakaar naa dinañu mën a jàppale ñeneen tamit ñu ngi jóg pour jàpp ci parce que bu ñu sañoon vraiment éleveurs yi seen liggéey ni mu méttee duñ ci am jamais de la vie lu leen naqari loolu moo tax ma naan am na sànq ku wax je crois que jéeyeen la mu ne am nañu suñu xaalis bu bari mi ngi ci compte xaalis bu bari bu nekk ci compte mu nekk aliment nekk dans un magasin ñu jox ko jur gi man moo ma gënal toujours wax naa ko ñépp tamit nañu génne xaalis yi nekk ci banque yi. ñu jënd aliment ñu jox ko euh, euh, animaux yi ñu lekk ko je crois que situation bi difficile na trop période bi donc loolu ku dem na ko yóbbaale ci sa département bu ñu leen waxee ngeen ni ministre bi moo ñu ko wax wax naa ko tamit gouverneur yi parce que période bu difficile la ñu ne fii ak muy taw ba ñax di taxaw suñu jëlul suñu matukaay yépp dina métti te éleveurs yi wax dëgg yàlla mérité wuñu loolu donc nañ ci jàpp ñun ñépp pour que liggéey boobu ñu mën koo def voilà donc ce que je voulais dire. Uh -huh. donc comité scientifique euh, du président votre facilitateur mais saluer également les brillantes présentations qui ont été faites par euh, monsieur Badji monsieur Silla et par euh, monsieur le progrès et monsieur Christian merci beaucoup pour euh, vos déclarations qui ont attiré beaucoup l'attention les témoignages également, ceux qui ont eu à en faire. Je pense que c'est extrêmement important. Féliciter la Maison des éleveurs, le DIRFEL, l'UNOES, toutes les organisations de professionnels de l'élevage qui sont venus donc participer à ces ateliers. Je pense que, je le disais tout à l'heure, c'est très innovant d'avoir une journée mondiale, mais bâtie autour de thèmes qui intéressent les acteurs eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment saluer la démarche Euh, que nous avons depuis plusieurs années, depuis que nous avons commencé à célébrer avec les acteurs la journée du lait et qui consiste à discuter de thèmes réels, de thèmes novateurs, de thèmes qui peuvent faire avancer le secteur de l'élevage, particulièrement la production laitière. Je pense que les thèmes, les sous-thèmes que vous avez eu également à traiter, euh, de même que euh, la, la, la, population également, les participants, je crois, ont apporté aussi euh, des réflexions de très grande qualité tout cela mis ensemble, vous aurez, je suis persuadé, un bon rapport que nous, que nous pourrons même euh, euh, présenter au chef de l'État à l'issue de la journée. Donc vous faites la synthèse, demain ça va être présenté à la grande plénière avant l'ouverture euh, de la de la cérémonie officielle donc de la célébration de la journée mondiale du lait et je pense que tout le monde se retrouvera là-dedans parce qu'en tout cas j'ai beaucoup aimé euh, les, les, la qualité des interventions Euh, c'est des interventions vraiment de terrain donc qui nous mettent euh, en rapport euh, particulièrement avec le secteur laitier. Donc féliciter également les, la belle mobilisation des femmes, des hommes. Je sais que la région de Thiès s'est beaucoup illustrée, mais je voudrais saluer toutes les régions du Sénégal qui sont aujourd'hui à Thiès, qui les accueillent. Saluer la présence de monsieur le représentant du maire, Tala Silla, et le remercier aussi d'avoir bien voulu mettre à notre disposition cette salle euh, emblématique de la ville de Thiès où j'ai eu à tenir plusieurs réunions des CRD, que ce soit ici ou dans, dans l'autre petite salle à l'extérieur. Euh, je voudrais donc le remercier très sincèrement et remercier Madame le gouverneur, Monsieur le gouverneur, de même que la, la FAO également pour sa participation. Le... Merci à tout le monde.